mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sonte yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaat bu baax suñu yaakaar teeg ëllëg di ko tedd ki di Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci di leen jaajëfal baax a baax di leen di jiital ci nuyoo beeg ziar bu ko tedd ki Serigne Touba Seex Muhammadul Muntaxa Mbàkke xalif général kulu di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ba mbooleem ay naa la ma ki sumbam mu eggale ko defee nu koy njortam waaye tam di siyaar bu baax itam mbooleem njaboot ak maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di yëkkati kàddu yu nuyoo kàddu yu siyaar di ko teg ci loxool ki nga xam ni moo di Serigne Ahmed Fall jiite lu ñaar ràkka yi ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo topp ci ginnaawam ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaar di leen baax a baax waaye tam di siyaar itam ñëpp ñi nga xamante ni waxtu yi ñu ngi jàkkaarloo ci duñ seetaan ci biir réew mi ak bitim réew su ngeen gisee bërëb bu tedd bërëb bu sell bi nga xam lañ nekk ngeen xam ne ñu ngi ci wàccaay bis bu mag bis bi nga xamante ni bii moom la ñuy wax ñaari rakkaay ndar ñaar ràkkaay ndar nag suñ ko waxee xel yépp dem ci côté ki di Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ngir julli ga nga xam ni julli woon na ko ñaar rakkaam ya ci bureau gouverneur bi ci ndar loolu tax nag ñuy siyaaroo ñëpp ca leen di balaax baax a baax mu mel ni ren ji nag dañ ko duppee ku tedd ki nga xamante ni moo di Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ñuy ñaan yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem di siyaara baax ki ko fi nekkal di Cheikh mustapha di ñaan yàlla dooli ko tawfiix baax a baax kon mbokk yi su ngeen gisee jataay bi xam ni kon ñi ngi fas yéene dugg ci waxtaan woo xamante ni dañu koy jagleel ñi nga xamante ni bii ñooy commission yi doon saytu liggéeyu kuréelu ñaar ràkk yi ndax su ñu waxee ki nga xam mooy sëñ Amet Diouf sëriñ Amet Diouf mii ñu jàkkaar lool mooy ki nga xamante ni moo yore kuréel bi saytu wala itam commission bi saytu lépp lu jëm ci wàllu alquranul karim ndax suñu waxee alxuraan xel yëpp dem ci Serigne Touba suñu waxee alxuraan itam xel yëpp dem ci ndar ndax ndar alxuraan yàgg na fi ndax Serigne tubaa day fonk gum fokkoon moo tax mu ko doon sadd ay béyt di ko wax yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili kitaabun bii narju min allahi rahmatan wa nanju bii dunya wa oxra karb loolu lépp soo gisee fonk gum fonkoon alxuraanul karim la loolu nag moo tax ñu fës yéene àndante. ak mbokki taalibe yi ndax euh, commission bi day commission boo xamante ni dañoo tàmbali liggéey bi tàmbale ko la 10 août ba léegi di sélectionné ay xale ñi def ay concours jongante alxuraanu karim ba ñu dem nag ba bisu démb bi ñu génne lu toll ci juróomi xale yi nga xamante ni ñoo jël paye ci daara yëpp ñoom itam ñu daal di neexal neexal sëñ daare yi neexal ndonga daara yi loolu lépp nag di liggéey bi am solo boo xamante ni kuréel ñaar raakay ñoo koy def. kon duñ def lu may daal di àndandoo jibal kàddu ki nga xamante ni moo di sëriñ euh, ki nga xam moo di sëñ Ahmed Diouf sëñ Ahmed kuréel bi nan lañ doon euh, sélectionné ndongo yi ak daara yi ak taxawaay biñ ci am. ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli si yent bi sadd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xam ni yéen a yore mbir yi di di ko gëstu ak di ko siiwal waaye di la wax itam commission Coran bii maa nekk si si si si si kanam yàlla xam na ne du liggéeyu du liggéeyu benn nit du liggéeyu ñaar nit waaye liggéeyu liggéeyu ensemble la te maa ngi koy wax léegi Serigne Lamine Gueye nga xam ne moom moo moom laa toogal nii ak ñii ànd di liggéey mu Serigne Lamine a ngi fi moom tam bokk si si si si si si si ñi ko doon jàppale suñuy ki nga xam ne mooy mooy Baye Fallou ñaari rakk yi di sëñ Souleymane Touré. mi ngi si moom tam di si def liggéey bu rafet sëñ Ndiouga géey mi nga xam ni montam kenn la si si commission Coran mi ngi si suñ jëwriñ gi nga xam ni moom moo yore wàllu finance bu kuréel bi yëpp di sëñ Lamine Guèye mi ngi si ak sëñ sëñ Mouhamadou Thiam mi ngi ni toog si jotaay bi commission Coran nag dafa nekk ñi nga xam ni si maa maa ngi wax sëñ Lamine Guèye ni que léegi c'est c'est la commission la plus élastique parce que ñoom seen mag seen seen réunion. ñëpp waa kuréel bi yëpp fay teew waa kuréel bi yëpp fay teew te te te suñu fa teewee euh, cinq heures ba ñu fa jógee ñu julli timis ba pare loolu yàlla mën na ko seere ndaxte yàlla daf ñu boole itam ay jigéen yu yu passeefu lool jigéen ñu am passeef ñoom ñooy dem wuti seen ay moyens ñëw def ko ci ci ci ci ci commission bi man yàlla daf ma nattoo rek. ñu teg ma si bopp commission bi waaye dama dama leen di wax ne yéen man da ngeen ma noppal ndax li nga xamee ni man kenn maa ko waroon jóg di ko sosoo di di di ko def waaye fii ne ni ay yeneen bras yeneen jëmm ñoo koy def te ñun sunu sunu sunu liggéey si commission Coran du ni ni du ñu jël alxuraan teewal ko sunu kanam mu nekk jëmm di ko liggéeyal parce que bala ngay bala ngay liggéeyal nit wala ngay bala liggéey boo mënti def su su ki ngay liggéeyee teewee. daf la yokk Pastef ñun alxuraan duñu ko duñu ko bëgg jël ko jëmmal ko teg ko suñu suñu kanam ba nga xam ne léegi donc lu nu yëkkati mu baax rek du duñu yaakaar ni moom rek moo ko yeyoo donc mu nekk liggéey bi nga xam ni liggéey bu bu xawoon dëgër la waaye démb ku ñëwoon fii si si place bii te ñu teew daa xam ni am na ay jàmbaar yu nekk si si si gannaaw waaw te te jàmbaar yooyu mooy ñii ak ñeneen ñi xëy xëy na teewuñu fi tey ak sunu soxla yooyu ma leen wax ci seen njiit nag. muy président Ahmed Fall démb rendre naa ko hommage parce que moom duñ koy duñ koy rendre hommage ndax moom commission bi daf daf daf koy jël def ko commission am ñëpp mën nga seetlu du nelaw guddi du nelaw bëccëg mi ngi si su tëddee guddi mi ngi si xalaat su yeewu si ba mi ngi si dox waaw ak ñi nga xam ni tey jii ñoom ñoom la àndal di sëñ Lamine Gueye mi kenn la si sëñ Moussa Fall kenn la si ak ñii ànd ak moom yëpp waaw commission yi nag. alxuraan ji bin bin bin koy dox comme ni nga ko waxee mën na ay weer mën na ay at sax soo bëggee waaye ren dafa am benn innovation bi xam ne moo si moo si am ndax ren duñu duñu jël ay ay ay ay ay maîtres coraniques des maîtres ñu ñoom ñu defal ñu ay préliminaires booleeg IA bi nga xam ne ah, inspecteur inspection d'académie ñu ñu ñu ñu former benn benn benn kuréel teg benn benn benn mbir nga xam ne mooy mooy. Euh, du def ay benn ay préliminaire préliminaire bi ñu ko def le 15 août le le 16 août la la nga def si espace jeune dajale xale yi nga xam ne ñoo daara yi nga xam ni ñoom ñoo nekk si département bi yëpp ñu génnee seen ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo gën yaakaar ñu def ko ñaari phase yi nga xam ne mooy xufaas yi mooy ñi nga xam ne mokk nañu alxuraan ñoom ñu jël leen ñu jël si ñaar fukk teg leen fee jël ñi nga xamee ni itam ñu ngi gëstu si alxuraan ñu ñu ngi si jàng. te te xëy na mokk mokk waaye am am nan si am nan si jagle ñu def leen ñu fa ñaar fukk teg nañ si si si si ñu defal leen ñaari ñaari salle ñoom ñëpp ku si nekk di compétir dem na ñu si ñu génne woon les les les cinq premiers defal leen fii la phase finale démb jox leen ay cadeaux yi nga xam ni ku ko fekke woon démb xam nga ni cadeaux yooyu yu mucc ayib yu mucc ayib yu mucc ayib la kon nag loolu loolu daal si tàmbali moom mun na amoon di si si. lu lu si wax si question bi ngay posé léegi. Euh, ku xam-xam waaye itam dëkku alxuraan su ngeen defee loolu yaakaar naa ni def ngeen lu mag ngeen ñi nga xam ni ñoom ngeen euh, jëlee mbir mi seen loxo euh, bëggoon waaye itam def ngeen loo xam tam ndar ku ko wax moom da ngay wax tam tarixa yëpp yëpp yëpp yaakaar naa amu leen woon xaaj yegg seen tam ci daara yi. alhamdulilah loolu loolu moom boo ko boo boo ko waxee doon ko laajee du lu neex a tontu la ndax alxuraan di bésu sëñ Saliou la sëñ Saliou Mbacke moom la ñu jël darajaal maanaam mu moom bés bi sarmada ba faw waaye nag ni mu nekkee bésu sëñ Saliou du ñu jël si biir ndar jàngalekatu alxuraan yi nga xam ne ñoo fi mosoon nekk comme ni nga ko waxee nekk fi ay ay seen daara siw loolu si si si bi ñu jël ku si nekk ñu jël si si bés bi darajaal nag jël nañu sëñ Ahmadou Ndiaye Mabé nga xam ne ku ku tudd alxuraan si ndar daa daa tudd. ñu ja ñu dajaal ki ñu darajaale ki bés bi jël nañu sëñ Moxsin Diop nga xam ne moo tam ku tudd alxuraan si ndar ak si yoonu murit xam nga ko ñu darajaale ki bés bi jël nañu sëñ maam Abdou Aziz si Dabaax ñu jël ko moom tam xam ne dafa dafa bëggoon ndar lool bëgg alxuraan lool fonk fonk fonk wa wa waa ndar lool ñu jël bés bi darajaal ko ko ren nag ki nga xam ne moom moom moom nag muy sëñ Ahmadou Diakhaté Sëñ Ahmed Jaxate nag moom dafa bokkoon si as askanu mbakkiw ndax sëñ Fallou Mbakke wax na ni kii si ñun la bokk mu jàngal fi ay Mbakke Mbakke yu bare jàngal fi ay borom xam-xam yu bare nekkoon fii di jiite jumaa murit moom moomu tey ji làqutu bàyyi fi ay njabootam yi xam ne ñoom ñëpp koo si gis daa xam ne kii xafisu euh, Quraan la démb démb moom noonu moo noonu dara yàlloon bi démb waaw macha allah te te ñi toog fi yëpp mën na seetlu bésu démb bi dootul amati fenn macha allah loolu itam mooy tontu si sa question bi bi nga wax léegi wax ni ñun ñun waa Ndar fonk noonu alxuraan te am na ay borom xam-xam yi xam ne jaar nañ fi te ñooñu ñëpp tey jii képp ku fi jaar ñu ràññee ko la incha allah da am nga bés si sunu bésu alxuraan bi. waaw Cheikh Saliou nag moom dafa nekk si si xalifaam li nga xam ne daf daf daf ñu marqué ndax ni mu bëggee woon alxuraan fonk kay maanaam jël ay xale yu ndaw di leen di leen di leen tàggat si alxuraan gis xel kom la mu fa def si ay ay ay ay ay ay ay daara ay daara tarbiya waaye li nga xam ni moo moo moo ba ba bala ngay tarbiya itam faaw alxuraan nekk si nekk sa bopp. loolu nag moom moom noonu seen moom kollëre te duñ fa dem seeti que mu ni yéen yéen waa ndar seen liggéey bii di màggalu ñaar ñaar rakka yi jël naa ko tëmbal ko si liggéeyu Sëriñ Tuubaa waaw waaw waaw kon nag loo loolu tax na ñu jël bisu alxuraan boobu ni sëñ Saliou daal moom daanu ni mu sëñ Abdou Lahad waxoon ni na ngeen jël benn benn bés seen màggal gi ngeen jagleel ko maam Jaara Bousso noonu noonu jëlee ñu tam benn bés si suñu màggal gi jagleel ko sëñ euh, sëñ Saliou Mbacké alhamdulilah waaw kaddu yi ma tàggatoo nag mooy sama nawle yii ak sama naataango yi toog fii sama sama gannaaw ak ñi fa toogul muy soxna yi nga xam ni ñoo doon jàppale démb ak barki démb ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ñu leen di gërëm sëñ Amer Fall di di ko sant di sant itam mbooloo xam ne moom moo nekk si si si si waaw di di wax nag jërëjëfee sëñ Tuubaa di sant Cheikh moom Cheikh Cheikh sëñ Muntaxa Mbàkke xam ni moo fi toggal yoonu murit moom itam ñu koy sant bu baax ak mbooloo mi kilifa yi ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk si ndar yëpp ku si nekk jàpp nga si bisimilah. Aliou Mbacke. ngeen sëriñ bi suñu nopp. mu ne seen dëkk boobu su fa lépp tàmbalee. am na bés tam mu wax ñi mm. màggal gi neen ko jullee foo ko borom defee woon. Mm. lii ñuy def nii su ndigalu sëriñ Saliou lañ koy defee fii ñu toog nii. Mm. sëriñ Saliou moo ñu ko wax neen nañ ko defee fi ko borom defee woon. kon defuñu ko ci sañ-sañ. dañ ko def ci ndigal waaw. di ndigal di lu am solo euh, tey sëñ Lamine ndax seen xel dal na nag bi ngeen ñëwee ñetti fan wala sax ñu ni jàpp suubu nañ ci fi mu toll nii ndax euh, tey la 2 euh, suba la 3 4 cinq ñu ñu muy bis bu mag bi nga xamante ni ci la ñëpp war a ñëw tey ñu gis ñu toll ci baas defar ak yooyu en tant ñi nga xam yéen a ko ŋànk ndax ndax fi mu toll nag seen xel dal na sëñ Lamine waaw mën nañu wax ni su la nit defalee lu baax wareef la ci yow nga gërëm ko sant ga mm-hmm. lii suñu coobar la woon ndax yéen googu la amoon ren taxaw laxasaayu pour defar ko hmm. mais yàlla dogal le maire de la ville dama koy tudd hmm. Mansour fay hmm. ndax sëñ bi la xam ne ku la defalul dara doo ko gërëm doo ko sant Mansour fay lii nga gis mu rafet nii ndaree sunu doole dugg na ci mais la ci ëpp Mansour Faye moo ko def kon mbooloom yëpp dañuy ànd gërëm ko sant ko si turu président Ahmed Fall ndax ñun dañ ko dund gis ko mu defal ñu ko su ko defaloon duñ ko ŋaañ taxaw na am na leneen lu ñuy séenu si chef de l'État séenu ko pour li ñu jël ci hôtelu hôtelu Touba bi nekk ci dëkk bi di ci dugal doo njabootu Serigne Touba gouvernement bi ñu ci loolu. c'est un appel de pied parce qu'on a beaucoup de pèlerins. léegi rek sëñ Xaadim mi wax ne sëñ Lamine. est-ce que xam ngeen mbooloo mu bari na dal seen kaw. Ah, wax ma tiit ci ñëpp ci tiit ba pare Baye Fall itam wax ñu loolu ñuy waa kër sëñ Mourad Laye yi ñu ah, sëñ bi ñu ñëw seen dëkk bi dinañ bari trop ndax pare ngeen kon dimbal googu séenu wuñ ko fenn ginnaaw yàlla ku dul ci nguur gi te nguur gi ci lañu bokk ndax na lañ ci bokkee fii su dëkk bi am na foire bi ñu fiy def si màggalu ñaar rakka yi hmm. ñu tudde ko marché ñaar rakka yi hmm. bon nekkoon naa ci position boo xam ne damay xam ñaata lañ ci am ci recette di ciy dugg ci xaalis hmm. dina jéggi ñaar fukki million benn te collectivité bi bi ñu nekk ndaree ñu ngi ñuy dimbali dañuy jox 3 million waaye ku am 21 millions war nga ma jox lu ëpp 3 millions am na yeneen xew-xew du ma tudd seen tudd di ko wax ñu ci dëkk bi mais dañ leen jox 20 millions dañ leen jox 6 million maire bi day joxe 6 millions ci ñooñu gouvernement jox leen 20 donc yàlla na ci kuréel bi ñu taxaw ko buñ ko jàppee confrérie du confrérie murid wala dara du loolu mbooloo mu ñëpp bokk la loolu daal ñu ngi koy sàkku ci gouvernement bi ñu xamee ko noonu lii daanu ci kaw kuréel bi li ma la wax léegi cotisation insertion publicitaire loolu moo ñu téye ak yenn jëmm yi comme soxna soosu ma tudd léegi mosuñu ko gis man maa ngi koy nag ci murid yëpp soxna soosu murid yëpp nañ ko ñaanal madame diaspora lañ koy wax soxna Absatou Kane man mii di waxante moom te surtout Serigne Touba mooma boole moom sa màkk lañ gisee ñoom ñaar sëñ Abdou Lahad naa la boole benn jëmm joo xam ni bokkul ak yow yoon wa nga jëm mais ku bëgg yoonu murid la ba pare ndar-ndar la comme yow doomu ndar hmm. ma ne ko kooku de xaw ma ko mu ni ma man laaj na ko ndax xam na leen nee na xamu leen soxna si woo ma bi mu ñibbisee Sénégal ni ma nan ngeen taxawee ma expliqué ko ni ñuy doxee ñun si journée yi ñu parce que mm. kuréel bi le 30 ba tey mm. ñun ñu ngi def ay manifestation mm. def nañ fi Mame jaara def nañ fi yeneen i journée ak journée Pa Amadou Fall Pa Ahmed Fall bi bi nga xam ne mooy journée Coran bi journée Mame Diarra bi teral nañ fi ay nit kàddu ga patrimoine Souleymane Touré moo koy taxawu foofu foofu mooy fi ñu boole woon ak sëriñ bi donc boo gisee soxna soosu ñëw taxaw sewet te du murit dafay jaado yow nga siiwal ko ba murit yëpp déggu tëram jàppale ko ñaanal ko man loolu rek laa soxla ci moom mosuma ko gis téléphone rek la ñu wax soxna Absatou Kane madame diaspora loolu daal bokk na suñuy jàppale looy mbokk yi ci xanaa di di di woo doo waat ñëpp ni ñun nañu gën a laxasaayu topp suñu gannaaw xalifa général suñ Muntaxa Mbàkke murit day wéy ci ndigal te ndigal mooy doole ndigal niñ ko mën a xisa buñ ko mën a leerale mooy lëndëmu fajar wéyu ndigal mooy mu fajar na nga gën a xuus mu gën a leer ñàkk wéyu ndigal nag mooy mu timis na nga gën a xuus mu gën a lëndëm yal nañu yàlla xajal ci loolu ñu ngi woo gërëm senegal di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf euh, Serigne Lamine ñu ngi lay sant bu baax euh, di la gërëm ci euh, taxawaay bi waaye tam ci leeral yu am solo yi nga xam ne leeral nga ko yaakaar naa lii moom day loo xam ni ma ko waxoon ci tàmbali bi euh, le président de la république ñi ngi koy lancé appel ngir lii na ci jàpp nu ci daan jàppe mu gën koo dolli maire dëkk bi itam li mu ciy jàppe mu koo dolli ndax euh, njaboot ak Serigne Touba ñoo fi ñëw njaboot ak lislaam ñoo fi ñëw waaye itam njaboot ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo fi ñëw lii nag ay cotisation yaakaar naa yoratut lii yoratu ko néew nañ ci doole néew nañ ci kàttan waaye tam nag li fekk ñoom seen alal ak seen mën-mën di ko man duñ doo ma sa dégg ñu uh, wonku wala ñu wax dara waaye nag ku gis lii gis li fiy teew ci ay mbooloo yaakaar naa fi muy teew bëriwut waaye tam li ko waral mooy Sénégal gépp dañuy dagg ñëw ci ndar yaakaar naa impact bi muy dugal itam ci ndar ci wàllu économique ñoom itam war nañ koo bàyyiwaale xel xam ni kon lii soo duggee ci boutique yi day jar soo demee ci géej gi day euh, day jar foo dem rek fi mu doon nit ñaa ngi ci euh, di di jënd ka jaay yóbbu seen i kër loolu lépp nag di koom moo xamante ni mairie bi da koy gañe moom tamit war naa delluwaat njukkal ñi nga xamante ni ñooy kuréel ñaar rakkay di ko def kon Moussa Faye ñu ngi la ci lancé appel yow ak ñi sës ci yow ngir jàpp gi gën a mën a euh, yemb ba itam njaboot ak Sëñ Tuubaa gi fii ñëw li leen jël ci hôtel ni mu ko waxee bari na li ñu jël ci ay lycée bëri na li ñu ci leneen leneen bëri na lépp nag li ko waral mooy satisfaire mboolem koo xamante ni bii ñëw na fi nga am satisfaction bi bi bi nga bëgg la nga bàyyi sa kër nga am lu ko gën am lu ko dàq di lekk di naan ci loo fay daal di mu ko waxee nga xam loolu ginnaaw Touba ndar rek la la amaat kon nag ko bàyyi xel baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp kon su ko defee di ñaanal euh, sëñ Amet moom tamit yàlla loolu ko tawfeex kon sëñ bi ñu jox kàddu gi mu ñaan moom tamit bisimilah ñu taal loxo yi mu ñaan